daf na barke naa dafa telam mu xam ngaram ba dootul mooy muy ngalam ngay ma ñu fii ak fa ñu jëm mooy hôpital ku ràgg nga saafaral yàlla ko dee mooy capital ñu xam ni halal taami xaal sa mooy roy waay yoon wi mooy xaw waay te mel mooy roy waay dee woo ñëpp yàlla la dee ngay mi ñaan di ndax yaa liggéey ba xam ngërëm duy nga ñu leer may ñu ngërëm seddal nga xol ma bi xërëm ñu la gëmoon defar nga leen ñi weddi woon simal nga leen ñi soof woon jàll nga leen ñu gàntaloon suxal nga leen dex ñoo leen ñu naan ku soof root si yàlla day foo dafa sangoo ka naan noo ngi fi yow ba def dinaan dinaan si woon nandal nga leen ñu xam la woon xamal nga leen te boo si boo bàyyi na jooy nga jox ko weer te bañ jooy ku xëy fi yow nga reeg loo ku mar fi yow nga mandi loo ku jooy fi yow nga noppi loo taxoon nga ñëpp dajuloo jërëjëf sax ma Yeah! am benn gorom bu nga xam ne mu ngi dëkk Kër Masaar Paap doon jabar ku ñuy wax Bassirou Cissé Bassirou Cissé moomu moo may bay aas soxna mu feebar ñu indi ko mu wàcc liggéey bii si guddi bàyyi xëy ooma oomaamu jóg oo oh soxna si ñu wax mati ne léegi dëgg naa man bëggoon naa dem te mënumaa dem te lii xew na dama leen di ngeen dem teewal ma fa mënuñ ko fi teewal nag ndax bu fi newoon it wax dëgg yàlla nam fii tooge ak ñu nii fii tooge day utee waaye ba tey lépp ci biir ndigal la kon loolu moo tax ñu am si kàddu kon ñu ngi jégalu li ñuy wax it mooy yàlla si boppam moo ëpp fulla tubaab te it tubaab si boppam bu liggéeyee montre heure moo tax mu liggéey ko bu ko heure bu mën a tëra joxe heure dañ koy da koy sànni te it doomu aadama du jaawale li ma si bëgg a wax rek mooy yàlla si boppam moo woote ne yaa ayyuhan naasu yaa ayyuhal lazina amanu yaa ulil albaab yaa ayyuha naasu ay yéen nit ñi bàyyiwul kenn yaa ayyuha lasina amanoo kon séparé na nit ñi bëri nañ waaye am na ñu ko am ñu gëmul kon waxul ñu gëmul ñu gëm la woo boo duggee si biir ñu gëm yàlla dafa jël waxati na yaa ulil albaab yéen borom xel yi seex ñaar danaa wax mu ne ki amul xel dafa mel ni booy boo teg wala yéeg boo tey te bëgg saa dugal ndox te bëgg ko ndox du sa dem. kon Cheikh Moussa oote bi lim rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy moom de na man dana tabe ñu ne kon tàng wax ko mu ne bis ni ki tey de bu fekkoon ne man la yàlla joxoon ajana ak safara ma fay safara jël ñëpp dugal leen am ko watoon ne ko ah yàlla nag moo bind safara bind ajana waaye benn bu ne dafa war a seet mu ne ko yàlla tëwul mu bind benn jëmm doo mu fees safara li si mu jox ma mu ko njàmme wax na loolu ndax man 81 laa jébbalu si Cheikh Moussa gune laa si nag waa fekkee naa si lu bëri kon Cheikh Moussa dalaan wax ne ñii jaay poobar ak ñii jaay soble njaayam poobar ak njaayam soble ëttiwut leen si ñii jaay laaj da jaay yeneen lëjum yooyu ëndiwut leen lan moo leen ëndi wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun man yàlla amaluma nit ak jinne si dara la mooy ñu jaamu ma. Cheikh Moussa danaa wax ne pourtant picc bi nga xam ne yàlla moo ko amal bayu gorul yettu demul fenn te bu xëyee balaa jant soo dana lekk ba suur sang Cheikh Ndiaye wax ne yàlla ne dafa am lu ma leen sant am lu ma leen amal ameel li ma leen sant mooy ngeen xam ma. li mu leen àndal mooy alalu àdduna bëgg bu ma bëgg nag doomu aadama tax na bu ngeen taxee li ma leen sant da xam ma ñëw si li ma leen xamal da alalu àdduna ma yëkkati bi jox leen ko waaye nag bu ko wax ne alalu àdduna moo leen ci jiital féete leen gannaaw féete ngeen féete ko kanam mu ko wax ne bu dugal leen sa bu fekkee da ngeen bàyyi nag li ma leen xamal da alalu àdduna si li leen sant da xam ma ma wëlbatiku wul ko ci jox leen alalu àdduna ngeen leen neex ngeen jiitee xenele ko tamit biir loolu waa ji dafa wax lu am fu la Cheikh Moussa xàmmewu doon tijaan ak murit ak lan la gisoon ak lan weex ak nawu xonq ak ñuul bu ma leen ana nawu xonq doomu war a laaj dooma joxoñ nawu weexo ne ma mu a na le su ma leen ana nawu weex bi dooma joxoñ nawu ne ma mu nga na le su ma leen ana nawu xonq da nga may joxoñ nawu xonq su ma leen ana nawu weex wi nga joxoñ ma nawu weex wi waaye boo leen rattee nag dàq naye ñu dem nga teg benn bu ne meew su ma la laajee meew nawu xonq wala nawu ñu wala nawu weex doo ma ko séparé kon Cheikh Moussa oote wu doon loolu muy lu wér waaye Cheikh Moussa si boppam it nag dafa am lu mu doon liggéey ba bàyyee ko ba bàyyee ko bàyyee ko njaboot ak baatinam ak njaboot ak saahiram muy lan muy xam-xam bii nga xam ne moom la Serigne Touba waxoon ne alxelmu laa bi kasarati riwaaya bal annahu nuurun maa bilaaya alxelmu xam-xam laa bi kasarati riwaaya du saa gën bëri nit yi alxelmu xam-xam nuurul leer la maa antriyaay bi nga xam ne mbir mandeel yàlla wàcc si sang bi nga xam ne moom nga jokk te mu jot si yàlla te jot woo ko fa mu def ko si yow nee na loolu mooy xam-xam